doy banta ba sali fa la war bay sa baaya addu fa Makka koy wala fa dal ko ñu doon fay galam de desu la kanta galam ko ko jëndaaru galam de desu la kanta galam ko ko jëndaaru sëriñ si bopp nañu laa xam wóoreesu laa mën a tontu galam de desu la kanta andika waxi noppi nga lambe dees la tete sa bàyyi man ñi fi nekkoon yow it nga man ñi la tolloon buy du yàgg ci gétt di ñam ba tax koo man sam nga lambe la tete bu yàlla jox na la teegin yeneen ba jox na la kersa nga lambe dees la tete nga lambe dees la tete

yàlla tabuy na sax du la tegu adduna yor daal tabuy na sax du la tegu naaj bu tàng loolay war yaa ngi seex a fi nekk konte konte gaa nga ca mbay si nga lam nga la tàgga balaam ngi ji nañu sàcce ba doom ma yegeem sëy di ba mu yegg see fu samp fu sempi na sampam lamb fal ba ñu koy wax taxul ñu boole ca mbay si nga la tàgga mi na mbay si samay maam maa ko def garaat bu rëy la ci baatin cër bu weesu bu xutbu nga daan nga des la gootal yaa di fekk lu foogul nga woo mu ñëw si sa geppar nga sol ko wër yu mu dul yëg mu daal di génn di kaamil bu kenn xamul fu mu màggee demoo di ko tegu ñëw nan nga daan nga des la gaatal demoo di ko tegu ñëw nan nga daan nga des la gaatal yaa di fekk lu foogul nga woo mu ñëw si sa geppar nga sol ko wër yu mu dul yëg mu daal di Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr Mamadou Lamine Biga Sarr yónneen bi ñëw Biga Sarr bépp kuréel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 سيدنا محمد الفرح لما ولقى القلب لما سبقنا رب العقيد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما ولقى القلب لما سبقنا رب العقيد مستقم وعلى آله حق قدره ومن قدره اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أولق والقلب ما سبق الرب بالحق والهادي إلى أدرك المستقيم وعلى آله حق قدره ومن قدره يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم تسليما إلى صراطك المستقيم وعلى آله amin yàlla na yàlla nangu sëriñ Dame Diol egsi na ñu ngi koy ziyaara bu baax a baax a baax a baax laa ilaa ثنيتو بركبتي مثلا وجهت وبيال العجز الكسر ولمن دخلوا دخلوا دخلوا فاتحا بإيمان هذا الذي كان على رفق لا لا لا الله منزل الآيات من قرآن وحوى بمردات العليم بسمه يا يا يا مقتضى القرآن ختم الولاية ما غفى أمر ختم الولاية يا يا أمر بإيه دمانة محمودة لسوالك طريقة محمود أطلع المجامع وصل الباب وكرتني أنا شيخ ختم الولاية ما غفى يا يا والنبوة جدوى والحيان هو مجمع البحرين عين عناية بوراثة من نذير رحمن وتواترت رتب له من بعد ما رتب بلا عذن ولا كتمان سرين بابكر نه هو أحمد بن محمد النجل الولي مختار الهلي جد آخ مددان هذا سليل محمد ذا صالم حقا أبا قدوة أزمان وقدوة ورغبة ووعدة أمدة ودفة الإخوان هو رحمة وهداية وكفاية ومذية ونغلة إنسان قد قصه المولى طريق الشفاعة يكفي السلوك بي عن البران من كان يدخله ينال بشفاعة من غير عد لا ولا ميزان فصلاته بصلاته داما على عين النيم وسيد أحيان وراد ورد معيني لا تجرو والأجنبي والخن بيا سيان من كان يقلوه فلا يقرأ بي فتوثقوا بالأقوار رباني حاشا يؤوب المرء كان يؤوم لعصاصة عن زفرة بدماني أصفى الكريم له الخصائص نعمة فلنا من المولى بلطفان يا شيخنا يا أحمد التيجاني خطب الوجود ونعمة أكواني يا أيها التاج السني وبرزق لا إله إلا الله أختابي والمكتوم آه لذان يا خنيتي يا بخيتي يا منيتي فأنا المتيم إن عرفت كفاني ولقد يممت جنابك سامي على أشاء يدام ملازم الأردان ولقد وقفت ببابك دائقرا حاسا يصل لدي من ضيفاني وأتيت أدواء الجنان مهيما نحو العلاج مارسا أشيان ما عدكم أخذ اليمين بفضلكم في يوم يصف في أن سيقاني إن لم تكن خريتنا بخيائبي ظلمات الدار ويلتي من فان فلك الوسية بالنبي أوسيتها لتعرض السيطان لتان فأراك مصدوق المقال دمانة بسلامة الأحباب وال أخداني أنت الذي جاريت أختاب بلالي رتبا سمت فصبحت عن نكراني أنت الذي دل الجواب قلوب أدبا بمجلس الشافي الأكوان أنت الذي حقا أتيت جوائرا وفرائدا هي علية الإيمان أنت الذي خدماك خد على على أهل المهيمن حفظ الأذان الخلاصة وسلامة سيدي حنت فن عدائم الأخدان لي زفرة الأخشاء فويق المستمع فكأنني من فائدين طوفان لي ليغير الأخداب بحضن عبادة فأتيت معترفا بلا سلطان لي خيرة محتاجة بمحبة متلازم الجولان والهيمان لي غيرة ثورية بجنابكم أنت سموع ونعبة الأكوان لي رحبة فأبى الوصول مقارر ku ci gën a bëgg sëriñ Babacar defal lii say loxo ay na sabilu ay na sabilu ay na sabilu ilayka bil وداني فلئن أتيتكم وعمادي ذلة حلم الجدود تمرح الولدان حمدا لمن قد قصنا من فضلي بطريقك صافي سمي نوراني نعم الحياس دائم نزابي نزابي في العالمين روحان نعم الحياس السالكين إلى المنى ويحفهم حفظ لدى أنا اول أيكي في الأزال مصطفى جلدة كنك واو يا أمدا تجاني

Santa. Hola. Isa. Amen. do. الحمد لله الذي الحمد لله الذي إنه أبان من نوره نور النبي العالمي والصلاة والسلام على من أبان من نوره نور العوالم إذ أبان الله ببركته جميع نور الخلائق فكان كل الأخلاق منبعا لبركته وجاء لإنقاذ العالمية وهو الفرد الذي بيده كل الخيرات سيدي من مدى ومن يأتي باب الإله لماذا الخلق والآتي سيد الوجود وعالم الشهود طبيب الأتباء حبيب الأحباء سيدنا محمد والصلاة والسلام على صاحب الختم المختم والكتم المكتم أبي الفيوضات أحمد ابن محمد أسالم التجاني وكافة أهل الله جميعا أيها الحضور الكريم نحييكم بأزكى تحية وأنما سلام إلى سماحتكم لا سيما الشيوخ والأئمة والأساتذ والسادات الكرام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لن يجب أن يكون في الله كيف تكون أر بينغا توك وارغا سانتي يالا ات مي ني فايوكو di ci dox suñuy soxla di ci faj suñuy soxla at moomu moo jeex ci diggante bu gàtt la jeex am ñu ko tàmbali woon jeexaluñ te bi ñuy tàmbali yàlla ñu yàlla boole ñu ko bokk ci ñu koy jeexal tàmbali yomb na waaye àggale jafe te kenn xamul lépp ngi ci loxo yàlla kon at mi ñu génn yàlla ñu yàlla jéggal suñuy bàkkaar te am naa ci yaakaar dafa neex ngay jeexale at ci jaamu yàlla dugg at ci jaamu yàlla te loolu ci ëttu yent bi la am moo gën a wóor ngay jeexale at ci mooy yàlla di dugg at ci mooy yàlla boobu wóorul ndax guddi gii am na ñeneen ñu fanaan feneen foofu noonu lañ jeexalee seen at dee dalul sama xel dañoo fay waye lañ duggé seen arit dalul sama xel waye damay nuyo nuyo bu gàtt rek jël nuyo yëpp te ko ci loxo kenn rek mu yóbbaale ma ñëpp ndax fi ma taxaw mo fi waron taxaw doxal li muy doxal muy suñu bay ju bax ji baay xaddam siise mom mo xam ñi muy nuyu mo xam ñi mu séqal man dama ko wuutu te def na lu rafet gis nga lii lii ci réew mi dañ koy xëccoo ku dem ci programme sax soo waxul mer bu dee firikat nga dem pour toj fa bu dee waykat nga dem pour toj fa soo ñibbee tojoo fa nag yaay toj ñaar rek am nga toj fa baa nga toj sa xol du neex soo bëggee am jàmm na da ngay féexal sa Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy nee na sangooy saafara baax na takki nomba baax na waaye raxas sa xol mu set wicc nga yéene ñëpp jàmm mopp njëriñ Serigne Cheikh nee na ku yéenewul kenn jàmm doo am jàmm da ngay ni li war a nekk sa loxo kenn mënu koo téye su ko gëmee rek da ngay noppal bàyyi xaddam li def daa rafet mën na ko def moo ñu ëpp xam-xam suñu baay la te miin na micro ëpp na 40 ba 50 mu taxaw def lii su toogee fee sol lu weex tal mooy génn ci làmb ji set wicc weex tal te loolu jikkoy noobul la jikkoy garmi la gis nga nit day moytu wëlbati jën ci ndab kilifa da koy moytu

حمزة ابتكر لله رب العالم ووعد ku la bañ saña nangu te dañu ma yónni wa pikin nak ñoma yoni ak union pikin limay waxit gannaaw bu mu nuyo rek sang bi ak tante bi yëpp ndokkeel doom ju baax ji ustaas Jóol yal yàlla barkel la ci zaahir ak ci baqin Mouhamad Ndiaye yal yàlla barkel len ci zahir ak ci baqin ci barke Serigne ahmed si bi tok barke mamam Seydil Hadji malik barke magam ji mu fi togal Cheikh Seydou Mouhamadul Mansour bokk yi Cheikh al hadji malik dafa am ben way bu mu way te ñu féetale ko ci ben bor tay nak ma bëgg leen ci wan benen bor Cheikh al hadji malik dafa wax ne ya man jinan al khuld yaskanuha فقد من طلب المفتاح بوكو ديفه تحترمي نينا كو بغا دكي اجانا الك بول تد ريك دي نلاو ن داما بغا دكي اجانا نغا جيتال ووت شابي جي يونتبي صلى الله عليه وسلم واخنا ني كو لغييل كو لغييل بن نيتو يالا لو تورن خطو غيرتي nee na man maa la war aljanna ëllëg nitu yàllaa ngi nii waxu ko su ko waxoon moom mu demee neneen waaye waxu ko nun ñii nga xam ne nun ñépp a ngi toog di ko déglu moom dong noo ko wax ci nun noo ko wax kon nag gannaaw yàlla féetale na ko foofu te moom mu nangu noo féete fi mu nu féete waaye kon nan leen wut caabi ji ci moom. ñu daal di àndandoo wàññi coow li daal di déglu Serigne Ahmada si Jamil ibnu Cheikh Seydi Mouhamadin il Moustapha si radiyallahu taala anhu ibnu Cheikh Seydi Aboubacar si radiyallahu taala anhu ibnu Cheikh Seydi Alxaaji Malick si radiyallahu taala anhum sëriñ bi nee na asalaamaaleykum wa rahmatullahi ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp. di leen ziyaara di leen masawu coono yi di leen ndokkeel ci guddi gi di leen jotal nuyoo ak ziyaara bu Cheikh Seydi Mouhamadinil Mansour di wax ci turu sunu jarbaat bi di maam Alxaaji Abdul Aziz bu way juróom sëriñ Babacar si Abdou tabaarakallaahu nuyu délégation bi mu àndanteel ba teew fi tey uutu fi way juram bu jigéen di soxna Ndey Mareem fa tabaarakallaahu di leen jotal nuyoo ak ziyaara njabootu maam Seydil Hadji Malick gi yëpp Seydi Aboubacar Sy Mansour. li ko dalee ci xalifa bi di Cheikh Seydi Aboubacar Sy Mansour. ak mboolem mi rakkam yëpp. ak seeni njaboot yëpp. di leen jotal nuyoo ak ziyaara bu Cheikh Seydi Mouhamadinil Mansour. nga xam ni moo fi uutu way juróom wa Cheikh Seydi Mouhamadinil Moustapha Sy radiyallahu taala anhu nuyu kilifa yi fi teew yëpp. di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen massaw di nuyu président daayira bi wala groupe bi nga xam ni ñoo woote bis bi boo seetee li xew ci biti ak li xew ci tànt bi waroon na lool la Ousmane Fall di wax naan bés bu jotee bés bii su jotee am na ñoo xam ni suñuy génn lanu sol baaxul fa ñu jëm baaxul lanuy def yi itam baaxul boo ñëwee ci bés boobu fekk fa njaboot goo xam ni lañu sol baax na fa jëm baax na la def baax na sant yàlla la yàlla na yàgg yàlla na gën a yaatu tabaarakallaahu bés la boo xam ni ndaw ñi la ñuy sànq kon bëgg nañu ndaw ñi di ñëw ci lu mel nii tabaarakallaahu nuyu mbokk yépp ziyaar leen nag ak bi ñu duggee ci tant bi macha allah di ñaan yàlla rekk yàlla na yàlla barkeel mbooloo mu mel ni nag li sëriñ Omar Gueye daan wax naan surcharge yamul rekk ci oto nit tamit dafay surcharge mu mel ni loolu moo ñu xaw dal macha allah ko bëggee woon. xam naa nañu ko bëggee woon. am temps wax li ñu bëgg a wax. am temps wax li ñu bëgg a wax. yaakaar naa ni du jàppandi ci guddi gi. waaye bu ngeen nekkee ci diggante mu xaddam ak oustaz Diol. yaakaar naa ne uh, xol dina fi sedd. dingeen ngeen bég ci yonent bi. sallallahu alayhi wa بكتي شيخنا احمد تيجاني شريف رضي الله تعالى عنه بكتي مام شيخ سيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه اك نجابوتام فتبارك الله كون ني دولي تي سنت يالا ندخ بس لا بو خامني بسو تيوفل لا الشيخ سيد محمد المصطفى رضي الله تعالى عنه دا فدان واخني nitu yàlla yi ci cofeel la ñuy rawante nena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu yonent yëpp cofeel bi dox diggante sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak borom bi tabaraka wa taala dafa upp doole cofeel bi dox diggante yàlla ak yenen yonent yi شيخنا احمد تيجاني التجاني اتم لمروي نيت يالله ييب تيوفل بي دوخ ديغنت شيخ اك مامم صلى الله عليه وسلم دافا اوب دوله ديغنت تيوفل بي دوخ تي يوننتبي اك ينين نيت يالله موتاخ ما شاء الله ما شاء الله مام منصور واخني مام منصور واخني يننت بي صلى الله عليه وسلم وأنت الذي خصيصت كل محبة ولم يكو ذاك الوقت غيرك باديا مام منصور وحني وانت الذي وانت الذي خصيصت كل محبة كل محبة ولم يكن ولم يكن ذاك الوقت ذاك الوقت غيرك باديا وانت الذي ياك كيغا خمن خصيصت جاغليلفنا لا كل محبة كل محبة بيبو جاب ولم يكن ولم يكن نكول زاكل وقت تشابو بالي جامونو بادي يا دي ادي فين غيروكا كودول ياو موم لا مام منصور واخ يونتي بي الله عليه وسلم تشوفل غوغو نك مام بابكر واخ شيخ نيكو لقد ارجح المختار بالحق حبه إليه تمناه رجال الروائع بالحق حبه إليه تمناه oustaz. tabaarakallah tabaarakallah. ñu bàyyi oustaz daam jool. ñu bàyyi nag. ah ngi ñaan képp koo xam ni. Ah, bëgg nga yonent bi ñoo ngi ñaan na ñëpp toog déglu oustaz daam ku bëgg a dégg Seydi El Hadji Malick rek toogal ah. damaa dof kay. sëriñ bi nee na sëriñ bi du na ñëpp toog bu kenn jóg. sëriñ bi nee na ndigal moo gën na ñëpp toog. li mu waxoon daaw sëñ bi gis nga day aj ñaan gi ci baas bi de laaj ko waa dëkk bañ demoon samedi nuñ tuddati laaj ko waa Ross Béthio sëñ bi day aj ñaan gi <laughs> waaw waaw day ah, waaye dafa mel ah, ah, bàyyi dañuy sëñ bi rek mooy yeeweeku parents yi ma yi ñëpp tabaarakallaahu ñu ngi fi na ñëpp wax amin <coughs>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 ولا ما دخلوا من حيث أمر أبوهم ما كان يغني عنه من العلم شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قداها ولا مستعان به وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يسر لنا كل أمر رب من كرم يا خم نغاي ديف سجام يا جابندال جافيا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 sabaniya ma sabaniya ma sabani sabaniya ma sabaniya ma sabani sabaniya ma sabaniya ma sabani قلبي في علاقة قد كفاني أنا والله حقا في كفاني سبابنا سبابي يا ما سبابي يا ما سبابي دعاني sabaniyama sabaniyama ñu ñaan yàlla teewe nañ ko ren yàlla nañ ko teewe at yu bëree bëree bëri ñu def ko ci bés boo xam ni ni ñu xamoon ñaareel ñaare. mooy nekk ci lu safaanu lu mel nii. tey bu ñu yàlla dimbalee. ba ñu mën a taxawal lu mel nii suñu njaboot soobu ci. njaboot soobu ci. ndax am na seen morom ñu am na seen morom ñu mel ni ñoom. ña nga ca leneen. kon nag loolu nañ ko sante borom bu subhaanahu nee na fan yii yëpp le 24. tombeeg juddu Seydina Isa alayhi salaatu wa salaam. bari na ay xew-xewi diine yi ci am. li ñu aadawoo ci jamono yooyu. mooy foo dem fekk fa ay bërëbu fowukaay. yàlla baaxee ñu. ba jullit yi am conscience ci ni nekk gana Seydina Isa alayhi salaatu wasalaam catholique yeeg kese moomuñu ko dañ ci am wàll ba ñu mat sëkk moom mooy ki feeñal ñëw Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ياتي من بعدي اسمه احمد ممن نيوم ينت يوي دنيو دون خلل يون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نينا مام حاج مالك رضي الله تعالى عنه وخلق الاخلاق بعث الانبياء وخلق الاخلاق بعث الانبياء مقدمة لزهري فاعلم ولا تنمي كنك فتبارك الله كنك جد يننت يال عيسى عليه الصلاة والسلام دفع أمصال نن جلدي كنك فتبارك الله يالنا يال دول سدورة يالنا يال تخو بجاي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم nee na wax ji du mën a bëri waxu cant la ak ngërëm ñu ñaan borom bi subhaanahu wa yaay lii yàlla bu mu gëj du nuyu nag nee na koo xam ni jigéenam la du léppam di soxna Daba Gueye mii toog fa tabarakallahu nee na barki démb rek ndey siis ma ca kër ga. ndey siis ma ca kër ga. dafa aye hmm. tuur. dafa aye ci kër ga ci ñoom Ndey Jaara. ak ñoom Ndey Maam Daba. ñoom ñoom màggandoo yëpp. ñoom ñoom daje fa. man leen ñii nag. mais seen i doyen. seen doyen. mooy ñoom Aïda Fall. mooy ñoom Aïda Fall. ñoom ak Daba Guèye. Eh, ak ñoom Kodou Sall. ak seen mag ñoom ñëpp. ak seen mag ñoom ñëpp. di Umu Fall kooku moom ca Rue 15 la woon. bu ñëwee Fass. bu ñëwee Fass. xale yu màgg. xale yu ba mën fa organiser lu mel. mën fa organiser lu mel. sant kon nag dañ koy sant borom bi subhaanahu wa سنتي شيخ سيد محمد المصطفى شيخ سيد محمد المصطفى سي رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه موم ميني تيتي باني خام فني تك سونو تانك خامي سونو نداي جور اك سونو جام كون نك فتبارك الله ني ني دومم سخنا ايدي سيسي سخنا ايدي سيسي tabaarakallaahu di soxna ci monsieur le préfet njoogu ndong moom nee na papaam goroom la ndax mag la ci soxnaam soxna jeyna ba kon na fa tabaarakallaahu ñu ngi koy nuyu nee na ko jotal nuyoowam ci borom këram tabaarkalla yàlla defal jàmm. yàlla nañu yàlla defal jàmm. di leen ñi nga xam ñu ngi fi woon. di leen jaale nag mag ñi nga xam ni ñoo nekkoon ci xadara bi. te yàlla moom leen. te yàlla moom leen. yàlla na yàlla yokk seen leer. ñi fi des. ñu ñaanal leen. ku gën mel ni suñu papa Gourmar Faye. ak ñeneen ak ñeneen. yàlla na leen yàlla kattanal. delloo si leen seen sago. yal na ko yàlla dem nee na marabu nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp salaamaaleykum wa rahmatullah talal leen loxo ñu ñaan kon bu nee nañ def fatiha salaatul fatih nee na mara bu nee na mi ngi jotal nuyoo mbokk waykat yi ñoom Njaay Jamil ñoom Yelli ñoom Moussa bàyyiwuñu kenn ak ñoom Njaase ñom ñep ñëpp bàyyiwuñu kenn tabarakallah ma rabu ne na ñu jàng fatiha salatul fatih ayatul kursi falaqin nas ikhlas tejeku salatul salaatul fatih ñaan yàlla defal ñu jàmm àddina ak jàmm ربنا من ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أعطنا ربنا ولا تحمل علينا سوء كما حملت علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واحفظنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على اللهم أنت أمرتنا وعدتنا وقدنا على كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف المعاد صلاة تفتح لنا بعنا باب الرداء والتيسير والتحلق بعنا باب الشر والشقاوة والدعاء تكون لنا بها ولن نصيرا أنت ولينا أنت ولينا أنت ولينا أن نعم أن نعم الناصر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة من أمر